gannaaw bu àdduna bi doon jànkuwante lii nga xam ne moo nekk coronavirus bi loolu tax na ba business yu bëri ñu ngi daanu ñun ñu bëri ñu leen wax pour ñu toog kër pour ñu bañ feebar bi di law lii nag waral na ay nit ñu bëri di jooy parce que dundum bi dafa seet trop surtout lii nga xam ne moo nekk yi sew yu nit ñi toogee mu ngi seet trop si weeru koor bii nii bu doon waxtaan ak ñii nga xam ne ñoo dee jaay si tipa garage ñoom wax nañ jafe-jafe yu nekk di jànkuwante balaa weeri koor bi bagages yi seeroon nañ waaye léegi la gën a seer si weeri koor bi nii ñun nag dañu fagoon ne weeri koor bi bagages yi dinañ wàññi waaye si la gën a garaaw ñun nag ñu ngee njaax nguur bi pour mu dimbali ñu pour bagages yii ñu wàññeeku depuis si first day yu weeri bi bagage yi ñun doon dem waaye si ñetti fan yi nii bagage yi seer nañ torop te ñun nag ñu ngi amee ay bagage waaye lu tax nekkul di jar moo nekk bagage yi den seer yenn saay sax dangay jaay sa bagage yi nii ñetti fan ba ñeneenti fan balaa moo jeex ñun nag ñun daan jënda kilo tamaate 25 si ñun ñu jaayee ko 30 si wala 35 waaye nag léegi kilo tamaate 30 la wala te tey tamit kakumba ñu ngi koo jaayee kilo 60 dalasi tey tamit da nga war a nduga yeneen leeka depuis bu weeri koor bi commencé te nekkul di dem depuis suba maa ngi toog fii nii mënumaa jaay dara jën bu ma dog sax benn jarul si nit ñi nag ñu ngiy ñëw de waaye bagage yaa seer moo tax nekkul di dem te man su ma jaay bii laa dee jaay ba pare su ma wàccee ma jël xaalis boobu noonu ni mu dugg ah, ma togga pour man ak suma doom yi ñu lekka tey tamit foofu laa dee fayee seen school fees ñoom nag continué nañ di ñaax nguur bi pour mu uti li nga xam ne mooy yoon pour ñu wàññi bagage yi nii parce que ñoom si business yi leen yaakaar pour dundal seen i njaboot ak tamit di fay seen jàngum doom yi reporting for Paradise TV News Nafisatou Camara